lii mooy liggéey. Gore li ma fa jëlee foog ma wax si tuuti tamit waaw waaw dama ñëw Gore daan def ay compétition yu baax ñëw année bi passé année bi passé ñëw ñuy joué gars yi xamal ni ñu kuy joué du wóor man ku ma xam-xam dama fowal di wóor ñu ne kuy joué du wóor. Augustin na ma léegi li war si sa woor maanaam li nga war a génne soo wooru naa la ko jox a génne kon benn problème ñu dem championnat bi am ay match yoo xam ni dafa am importance ñu ne foog ñu a woor ñu jouer match quoi ma jël engagement boobu xaw ma lu ma siy fekk suba xaw ma ndax yàlla dina ko baal wala duma ko baal comprendre xam nga football affaire caaxaan la yàlla boole ko suñu suñu suñu di donc dog naa samay koor football naa mais dafa am benn match boo xam ne dernière journée la ñu nekk stade de Mbour match bi amul enjeu Gorée sauvé na stade de Mbour ñaari équipe yi wàcc ñëpp xam nañ ko si siraat ne ma comme yow instant yi li nga joué si match dafa bëri dernier match bi amul solo noppal ko ba demi-finale bi contre jàmbaar fekk ñu ngi war a dem préparer demi-finale coupe de la ligue coupe du Sénégal coupe du Sénégal voilà mu ne ma pourquoi pas doo noppal ko man ko c'est important parce que man dama sonn quoi bàyyi ma si match boobu mooy noppal si laa profité wóor parce ñëw toog si banc bi rek nekk comme genre coach mais ma jël décision wóor parce que vice président yéegu Gorée bi woo mbay ju mbay mbay mbaw dama dégg naa da nga woor ma ne ko waaw dama woor kay parce que marché bi amul enjeu marché kay dog naa sama koor joué xanaa nag bii ngeen ma ko may ñu ne ma yooyu amu fi da nga jël sa dem waaw ñu dàq ma moo tax joué ma final bi maa maa joué match yëpp coupe yi yëpp championnat yi yëpp maa ko joué bii dugal maa jël meilleur buteur équipe bi di avec 10 buts daaw maa jël meilleur buteur équipe bi avec 10 buts ren maa jël meilleur buteur de Ligue avec 9 buts Gorée ñoom ñoo desal desalu ma leen lu ne def naa ko Augustin si moom xam na li may wax bu déggoon li may wax nii xam na li may wax te su ma sañoon lii ngeen di def nii moom mu jot si parce que man ak moom am nañ jaar-jaar Augustin damay jógee voyage ñëw équipe bu nekk tegal ma somme bu dul jeex moom mu ne ma lii laa am ma ne ko yola laay joué donc moom waroon na mu mun kaasal ne bàyyi leen kii mu joué parce bi tax mu bañ a joué nii du important waroon nañ ko mun bàyyi mu joué mais moom moo njëkkee loolu dama ko woo mu ne ma décision bi du man maa ko jël équipe yëpp a koy jël donc lu équipe bi jël loolu la man ko am benn problème après jour di ma woo nànk-nànk di ma wax booy ñëwal entraîné ñëwal entraîné ñu dañ la soxla bul xool si dirigeant yi bul xool si président bi ñun ñoo la soxla bàyyi nañ ko ba fii ñëw ñu yeggali ko mais amu benn problème après ma ñëw entraînement par la suite toog ak coach yi excusé wu si affaire bi jot am baalu ak ñëpp comprendre bi ma ñëwee ñu Korité ba pare deux jours après Korité ñoom ñu war a dugg regroupement Siraaj si la ma woo xamal ni ma dirigeant yi réunion nañ ba pare mais xamal ni ko moom man du ma joué kon jarul ma ñëw entraînement naa ko toog sama kër loolu moo tax joué ma final problème boobu la woon problème koor la woon. kon foofu da nga bëgg wax ne Augustin dafa la xaw a seetaan. Ah, mais bien sûr parce que ma jàpp ne Augustin man dama ko gudd ma ko bëccëgal ah parce que Augustin man fu ne jaar nañ fa man ak moom fu ne jaar nañ fa man ak moom c'est vrai que moom aussi. loxoom teggee ko si man mais aussi moom comme ni may def di ko rey di rey sama bopp si terrain bi mu may dimbali mais daf ko waroon yeggale ba mu mat mu waroon xamal leen ne kii dafa bay si équipe ba sonn may leen ko lii bu defee dara mun ngeen ma woo réunion taaj ma wax après mu jeex ma excusé wu mais man bi jël sama décision ba woo ko moom woo vice président bi woo dirigeant yëpp baalu leen ñëwaat entraînement woo coach yi baalu woo joueur yi baalu leen ñooñu war nañ ma mun si yoon parce que Gorée def ma fa un an def ma fa deux ans sept ans laa fa def non du lu ndaw du sept mois du sept jours donc mënoon nañu ma jéggal bàyyi ma ma joué sama final te benn boobu laa naroon am sens pour jouer final ak Gorée li ma joué sept ans yëpp aw ma fa trophée bi ñu jël championnat mi ma fekk en Maroc comprendre nga bi ñu jël ay coupe du Sénégal fekku ma fi donc benn sens boobu laa amoon pour am trophée Gorée ñu xañ ma ko lu ma gën a métti sama àdduna loolu la bokk li ma gën a poussé ma dem Jaraaf tam ci la bokk